chambre de métier yi à travers le Sénégal raison boo dem am na chambre de métier. waaw mhm. euh, mu am benn loi nag boo xamante ne moom moo ko créé nekk la loi 77 92 du 10 août 1977. moo mhm. am itamit tamit d' application bi nga xamante ne moo répartir les règles d' organisation et de fonctionnement boobu itamit mi ngi daté en 1992. chambre de métiers yi nag seeni rôle mooy rôle encadrement et d'accompagnement yu artisans yi la ñoom ñoo nekk yi tamit vraiment les représentant des artisans auprès des pouvoirs publics mhm. voilà di défendre yi tamit seeni e ci kanami pouvoir bi lépp lu jëm ci wàllum formation encadrer leen pour ñu am marché euh, jàppale leen pour ñu am financement organiser leen loolu yëpp chambre de métier yi la mhm. village artisanat yi tamit village artisanat boo dégg chambre de métier bi moom moo ko contrôler maanaam su ma jëlee supposons village artisanat bu Soumbédioune chambre de métier bu Dakar la bokk village artisanat yi nekk ci Sénégal gépp yi tamit chambre de métier yi ñoom ñoo leen di organiser seen i ak yooyu yëpp ay attribution yoo xamante ne chambre de ko jagleel. voilà donc chambre de métier ña fa nekk rek ak ña fa bokk mooy artisan yi artisan nag soo ko déggee mooy ki nga xamante ni dafay liggéey ak loxoom te artisan ñu ma ko mun na faram-fàccee mooy lépp ci Sénégal. maanaam mooy suñu càmmooñ mooy suñu ndeyjoor mooy suñu kanam mooy suñu ginnaaw ba ci plateau bii ngeen di gis ni ni mu yembee yëpp lépp lu fi kii nii artisan yee tax mu yemb ba ci ki hmm. nga xamante mooy technicien bi nga xamante mooy monter image yi ba nit ñi mën ko seetaan mu rafet artisan la ki nga xamante mooy ang mu koy cadré caméraman bi artisan la. Mm. y a plus de cent vingt corps de métier yoo xamante ñi ngi ci artisanat mais parfois sénégalais dañu jàpp ne artisanat mooy kii nekk ca village artisanat ba rek. di liggéey objet d'art di defal ay lam ak ay bijoux yooyu. Mm-hmm. mais jaaykat yi caaf bi nekk fii ci bunt bi kooku artisan la. transformatrice la. Mm-hmm. menuisier bi ngay gis mécanicien bi mason bi caloreur. peintre vulcanisateur la koo gis muy liggéey maçon tout tout tout ñëpp ay artisan lañ. waaw mun naa ne Sénégal koom-koom yi Sénégal artisans yi ñoo ko yor mais léeg-léeg nit ñi duñ ko comprendre dañu jàpp ne artisanat moom ki nekk biir Soumbédioune ña fa nekk noonu kese ñooy artisan voilà moo tax ma ne voilà ñëpp l'informaticien lañ l'informaticien yi ñoo ñëpp ay artisan lañ oui ñoo ñëpp ay lañ mais léeg-léeg nag cas yi dañuy am par peut-être parfois pour xam ko hmm. voilà donc liy yëng ci métier wàllum artisanat moo bari ba tax na léeg-léeg état bi li ñuy soxla parfois di wax naan wala autonomisation alimentaire ak yooyu yëpp. Mm. ñu ku ci nekk di xëcc di ñëw yooyu yëpp ay métier artisanat la. Mm. donc ñun tey jii li ñu soxla ba nga xamante ni ñun li ñuy nga xam moom lañuy li ñuy bëgg di dundee. ñun ñun artisan yi ñoo ko war di mun di transformer ba nit ñi di ko mun di jëfandikoo. Mm. lépp lu ñuy transformer ay métier artisan la. waaye nag parfois nag léeg-léeg euh, dañuy am ay jafe-jafe dëgg-dëgg. ndax secteur bi dafa nekk secteur boo xamante ne maanaam dafa ubbeeku. Mm. encadrement bi ñu waroon am dëgg-dëgg ak sécuriser ko. ba nga xamante ni chambre de métier yi nekk tugal ni ñu amee doole nekk ay chambre yu puissante chambre de métier yu Sénégal waroon nañu toll foofu. Mm. ndax je le premier vice-président du réseau des chambres de métier de l'UEMOA. Mm. suñu naataango yi wër ñu yëpp fii la ñuy ñëw di copier suñu modèle. Mm-hmm. mais léeg-léeg euh, maanaam doxalin bi dafay des. Hmm. ba tax na partenaire financier technique kenn ku ci nekke dangay ngay demal sa bopp ci terrain bi. alors que chambre de métier yi dañ leen installé par une loi. moo ko créé voilà léegi nag chambre de métier la ñu waroon jaar bépp métier ne dafa laal artisanat. Hmm. pour mu am organisation. dañu hmm. war a jaar ci chambre de métier yi. mais kenn ku ci nekk da ngay départ dem ci benn région. def lu la neex après en en retour du am organisation. problème yi ñàkk organisation war moo ñuy yóbbu ba données statistiques réelles yi ñuy soxla ci artisanat duñ ko am. Mm. soo ma nee ñaata artisan moo am man en tant que le président de l' union nationale des chambres de métiers mënu ma la ko wax. Mm-hmm. ku defee loolu xam nga problème la. Mm-hmm. te nag fi mu toll nii pour nga mun am ay projet ak programme yu fiable foog nga xam li mu doomu aadama ya ñaata lañ. Mm-hmm. voilà loolu nag pour mu yomb foog ñu fexe état bi lépp lu jëm ci artisanat mu koy jaarale ci chambre de métier loolu suñ ko réussir rek lépp yomb. donc yooyu moo tax tey ji ñu bëri ay jafe-jafe mais am na nu ñu doon basé woo ak jàppale artisanat encadré ko sécuriser ko. Mm. problème yu gaa yooyu nekk Algérie muy problème yu mbëkk mii. Mm. mun na wàññeeku. mun na wàññeeku loolu mun na nekk secteur boo xam mun ndax ñu ci bëri ci ñoom. yi tamit ay artisan lañ ndax bu nga dem foofu te obligé nga liggéey dara ba am benn 1 million 2 millions pour mun a pass si gaal yi dem. bu ko defee ñooñu mooy ménèbre maçon yi nga xamante moo nekkoon ci kii bi gisul boppam ci mbir yi parce que la mu war a gis ci commande publique bi amu ko menuisier bi liggéey tamit di liggéey ba sonn am sa atelier nga gis yow porte yi nekk Sénégal yëpp dañ koy importer yooyu yëpp ay difficulté la yoo xamante artisans yi dañ koy jànkuwanteel moo tax léeg-léeg ñuy tëj ñuy jaar dem Nicaragua ñi tamit jaar ci kii pour dem Espagne yooyu moo tax ma ne mënoon nañ ko wàññi suñ ko jeexalool naa ne mën nañ ko wàññi